ak Bassirou Diomaye Faye. mën naa dem ci coalition yëpp. Ah. yëpp je n'exclus aucune coalition. yow mën nga dem nga ànd ak Bassirou Diomaye Faye mën naa am sama jël ndaare man xaw ma ci loolu dara dama ni la gisuma ko. Ah, gisuma ko sama analyse sax gisuma ko bu jàll. mais dama ni la dama ni la et je n'exclus aucune coalition kenn moomu ma ginnaaw kenn nenu ma bennoo moomu ma la preuve je suis resté du pouvoir vraiment de Benno génnuma benn fonction pendant douze ans rester libre ñu ngi xëccoo poste yi xëccoo ba benn poste. waa léegi maître. ministre DGO yëpp muñ naa ko. waa léegi maître. donc ça ne m'intéressait pas parce que je préparais la présidentielle cette année c'était mon heure maa war a gagné élection yi fu mu dugg dëkk yi toj partout les gens se mobilisaient pour recevoir ndeysaan celui qui est dans leur cœur kii xeexal askan bi mm. bi muy tàkk ci taxawal moom kenn seulement devant askan bi moom kenn ñëpp di daw ñëpp di nëbbatu bande yi di taal dëkk bi voyous yi terroristes yi rebelles yi islamistes yi jihadistes yi bëgg taal Sénégal ma jàlloog ñoom bay taalaale sama kër